ñetti fan sitam xarit sering bu mag bi na bëret ne nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy keman nga xam nga li lu waral mom serigne bi nak dako beral loxo bu wér dako ndirol ak mom far ñu bokku defin ndiru na serigne bi jëm ja niru na serigne bi jam ja bu serigne bi don geej lab na cheikh abdou xaadir ni la jili togi nu serigne bi la doxi nu serigne bi la yoron xarfan bi xarfin lañu won mag ñe ko wax ño fekke won